du Cayor et leur dire combien je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour partager avec vous la vision du président de la République à travers son programme Sénégal émergent, mais à travers aussi les programmes qui nous concernent au premier chef et dont je peux citer le programme national de développement local, qui est un programme qui lutte contre les disparités territoriales. Et de ce point de vue-là, je suis venu partager avec les Cailleriens, avec ma base affective, avec ma base politique, dans cette terre noble de Nguigis, où je suis parent à tout le monde, dans tout le Cayor, dans toute son étendue, pour vous dire que je suis venu vous transmettre le message d'espoir de moi-même, mais du président la République pour son élection le 24 février, dès le premier tour de l'élection présidentielle. Le président le mérite, parce que le vecteur de la politique du président la République, c'est la lutte contre les disparités territoriales. C'est un président qui comprend le Sénégal, qui connaît le Sénégal, qui vit et qui a vécu les difficultés des Sénégalais et qui apporte tous les jours des solutions appropriées aux difficultés que traversent les couches sénégalaises, notamment les couches les plus fragiles. Je veux parler des femmes et des jeunes. Et c'est pourquoi. Et c'est pourquoi. Aujourd'hui, dans cette terre de Nguigis, où je suis entouré de tout le Cayor, où les gens sont venus sans être transportés, simplement parce que chacun, de par sa volonté, est venu par lui-même, à dos de charrette, à dos d'âne ou à pied, pour revivifier le pacte que nous avons, qui est un pacte de tous les jours, c'est-à-dire aller ensemble pour des conquêtes, pour gagner la bataille de l'élection présidentielle de 2019 avec le président Macky donc rendre à tous ceux qui la parole avant moi pour leur dire combien je suis fier d'appartenir à cette terre de noblesse, à cette terre du Cayor, terre mais terre aussi des sacrifices, mais aussi terre du devoir, pour que ensemble demain le président de la République puisse compter sur toutes les contrées du Cayor pour son élection dès le premier tour de l'élection présidentielle may wax nag xale yi ni leen et c'est important dama bëgg bu ñu jógee fii ñu def li ñu tuddee le forum de l'emploi des jeunes dans le Cayor ma bëgg def benn comité boo xamee dafay liggéey ci loolu dinaa désigner un comité exécutif boo xam ne dafay war a liggéey ñu recencé xale yi mbay jëng ñi nekk bitim réew ak ñi nekk fii ku ci nekk liggéey bi ngay def diplôme yi nga am ban niveau nga am ak bu fekkee da ngay bay wala da nga ay projet ñoom ñëpp ñu recencé ko balaa la 15 octobre ma dajale ndaw kajoor yépp ñu daje hôtel Kumba àndal ñu def fa benn symposium sur l'emploi su ko defee kayit yooyu bu may dellu assemblée nationale la 15 dinaa ko yóbbaale fu ma mën a bokk xale yi dinaa la fa bokk fu ma mën a bokk xale yi boo xamee ni war na mën a liggéey dinaa la fa bokk fu ma mën a bokk nit koo xamee ni nii fu ma mën a bokk bokk nit koo xamee ni dafa am projet te bu ñu ko jàppalee jox ko ay xaalis dans le cadre de la délégation à l'emploi rapide wala dans le cadre de la l'année sociale ñu mën ko financer mu mën a def projet boppam mën a liggéey mën a jariñ ndeyam mën a jariñ baayam mën a jariñ askanam loolu mooy li ma indaale kon nag la balle est dans le camp des jeunes su ma nee nag jeunes yi xale yu góor yi ci lañu ñu bokk xale yu jigéen yi ci lañu ñu góor baax na jigéen baax na ngeen def recensement yi ñi nekk université ñi pare jàng ñi nga xamee dañu jàng ba pare te liggéeyaguñu ak ñi nga xamee ni dañu jàng ba am baccalauréat mais fa seen jàng yam ñoom ñëpp nañ leen recenser ñun ñëpp ñu daje def benn symposium boo xamee ni la forum de l'emploi laa ko tuddee loolu nag na ma ñeneen ñi baal dama ko bëgg a tàmbalee ci Mérina Ndakhar d'abord su ma ko defee ci commune Mérina Dakhar ba mu réussir dinaa ko étendre nag léegi ci département bi mais pour le moment forum bi ma woote forum la boo xamee ni ci commune Mérina Dakhar lay yem ñun ñu bokk partagé ko dinañu jàpp bis bi mais incha allah balaa le 15 dinañ ko def jeunes yëpp ñëw ñoom ñëpp maa leen di invité. ñu nekk fa buñ fa waree fanaan ñu fanaan fa buñ fa waree yendu ñu yendu fa def liggéey bi ba bu ñu ko jébbalee buñ ma ko jébbalee man xam naa fu may jaar ba mën a faj soxla yi incha allah. beneen bi ci des mooy réew mi nee nañu namm nañ ma leen di xamal ni lépp lu ma xëy suba ba ngoon di ko def. maa ngi koy tàmbalee kajoor maa ngi koy tëjee kajoor man kajoor rek ma ñor man li ma ñor mooy li ngeen mënul mënalu leen ko seen bopp ma fexe ba dimbali leen ngeen man ko ma la dama ne yàlla nag dimbali na ma waxaguma fi lu ma deful yàlla dimbali na dimbal yàlla la waxaguma fi lu ma deful lu ma wax parfois sax ma tiit waaye yàlla day ñëw ak ndimbalam ndax nag ku yegg itam yàlla la dimbali kon yàlla dimbali na ma maa ngi koy sant waaye yéen itam duma leen wax mukk lu ma mënul lu ma leen junj laa ne sans poche waaw ba nga xamee ni bi ñu ma ko defalul ma ñime koo def te xol nag bu tojee lu ne antan na ko su ma leen woon ne su ma leen ne courant te ñëwul damay jaral ma jël sama cinquante million def ko ci waaw ku ko moom waaw kon loolu rek la pour mu mën a yegg rek pour bañ a wax ñu ne accam bi may wax yoonu daaru salaam dama ne bu ñu ko deful ma def ko waaye nag yàlla dimbali na ma démb fii laa toog xultu Ndiaye directeur Ageroute Thiès woo ma ni ma foo nekk ma ni ko maa ngi ko jox bu ni ma semaine prochaine ma ñëw ñu natt tali bi defar ko te ba may wax dama ni buñ ko deful ma def ko su ma ko doon def dina jar cent million te kon itam comme wax naa ko sama làmmiñ il faut ma góor góorul def ko yàlla ma dimbali nag ba ñu defal ma ko naa jàpp ni yàlla may na ma cent millions loolu laa jàpp ñi ci des nag maa ngi leen di ñaan leen bu leen déglu kenn bu leen xool kenn fi gars yi waxee sax dinaa leen tempérer tuuti xuloo jotagul xam nga lu ñu bëgg képp ku ngeen gis mu ne président lay may carte bàyyi leen ko mu liggéey te jàppale leen parce que yéen lay jàppale benn xew-xew rek moo am mooy président rek la ñu soxla bis bu ñu demee ba mu war a takkaat suma ndigg dinaa leen woon ni leen takk naa suma ndigg defe naa balañ cay yegg sax gaa yi daw balañ cay yegg gaa yi daw parce que ki nga xamee ni danga naan seew rang pour gis ko xanaa doo xëcc ak moom kon nag nañu fal président ba pare rek bu ñu falee président ba pare ba gars yi naan seew di rag naan dañ ko seeti bu boobaa du ñu xëcc ak man su ko defee may seet ki ma neex rek ma ne ko jiitul yàlla nañ yàlla defal sutura wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu